seraax la ñuy def ci xew-xewu lamb tey fekk fa face à face ba doon dox ca diggante Boy Niang 2 ak Tapha Tine bile ñu doon laam-laamee ndax dana taxawam déet mu jéena taxaw ba mbëri jot seen avance ba face à face Tapha Tine ak Boy Niang jàkkaarloo nañ seen jàkkaarloo bu njëkk waxante waxante ku nekk ci ñoom wax na sa morom fa nga fa séenee jaar ak moom bu combat bi amee bu nu jàppee bés ba bés ba yegsi ba arbitre tëj barrière yi génn seen diggante ñoom ñaar wax na lan lañ fa séenee defante bu dee koy laaj mooy ndax fa Ama Baldé jaar na fa jaar tournoi TNT bi moom yëpp ba benn la woon moo la mag jiitu la ci làmb ëpp la niveau waaye daan ko dañoo bëgg nga woon ko ne ko gone maa gën fii muus du fi naane ñeex noonee la def defal waa Pikine la bëggoon fa Ama jaar nag ba génn ci combat ak Tapha foofee la waa Pikine bëgg Boy Niang fa li ñu bëgg du lenn lu dul Boy Niang topp tànki Ama ndax dana ko réussir am foofee la laaj ba nekk en yi nekkoon ci Ama ba muy digganteem ak tafaatin foofee la laaj ba nekk bu dee tafaatin moom it la ko waa bawal yebbi mooy bëggatuñu benn gone di la këllëkkale li la daloon sa digganteeg Ama Baldé dañoo bëgg mu yem foofee bu mu répété wu sa digganteeg Boy Niang dañoo bëgg nga won ko ne ko yaa ko mag yaa ko ëpp doole yaa ko dàq bëre bu dee ci wàllu xeex la du puus du paas moom tafaatin lii la ko waa bawal yebbi mu war cee bàyyi xel ñeneen ñu war bàyyi xel gestu bi situation mooy couronne ba mu yoroon Eumeu Sène ko coppet ca moom bu dee assurance ñu ne moom ci galère la nekk depuis 2018 depuis combat ca Fatick ba léegi moom mën a gut am combat bu dee paka la moom ñetti ani balance la tegale Auguste moom it depuis 2014 bëriwaatul journal ba xam ne yile champion ak bu ñu leen gestu danañ dana dem retraite le 31 ñu dëgmal di président Alioune Sarr lamb ba léegi ñu ngi génn di joxe seen position di joxe seeni ak lu lamb ba léegi ñu ngi génn di joxe mooy damaa génn ji waaye man bëgguma mu dem li waral bëgguma mu dem mooy il sera difficile de lui trouver un successeur arène bi ba arène bi daj dana jafe nga gis fi fi mën a remplacer président Alioune Sarr foofee man Aboubacrine Samba la ma xalaat mooy Matar Ba na ko delloowaat ci bopp CNG bi bu mandaam jeexee na nu ko tabaat mu jiitewaat ko lu ko mooy bu keneen ñëwee suñu mujj ci lamb gi du neex combat ba nar neex mooy combat ba Adama Sane taxawal 2019 2020 leen di fekk ñu def 4 combats ak benn victoire ku wax écurie Sakku xam-xam wax Père Birahim njiit la coach ba ku wax Sakku xam-xam wax Mori Cargo wax Agogo wax Ndongolo bi la écurie seen benn victoire ba 2 ziga moo daan kaw gurde bu Dalifor seen 3 défaites ya bu Plateau moo daan Agogo bu Sakku xam-xam càndum 2 bu Njaga daan Brise de Mer 2 Kaani Sadam bu Songaan Gueye daan acteur Mori Cargo victoire am ba ca Cheikh Siber jamono ngërëm ñel na ko jërë ngeen jëf mbokk yi li moo nekkoon li gën a fës ci ëtt yéen a kaay bi ñu leen jox dig daje ba ëllëg incha